الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين بقي ما جلن دي نيين ñep bala nuy sore ci wax ji ñu delloo nuyoo sunu wëlëre wi fi teew teewal fi kilifa réew mi muy excellence mbay njaay ak délégation bi mu àndal di leen wax ne sant nanu bu baax te gërëm nañ leen bu baax ci seenub taxawaay di sàkku it ñu jotti lu su sunu nuyoo président Macky sàll ndax bisub Sëñ Abdou Khadre bii képp koo xam ne yëg nga ko tamu ñor la ah luñ ci fas fasaale la ci kon nag ñor gum ko ñor moo tax yàble si na fi kii moo fi jëkk a dikk Abdul Karim Fofana dib taale bi ci kër gi di fi xarit di fi wëllëre waaye tey jii nga dikk fi yow itam teewal ko ci cérémonie bi Abdul Karim dikkoon na démb moo Souleymane Ndéné ñoom ñëpp xam nañ ni ci ñi koy jàppale lañu bokk ak Alioune Badara donte li ci waa kër gi la ñuy it dikkal nañ ko fi tey it noo ngi leen di dalal yéen ñi nga xam ne yéen dikk tey teewe si eh, ndaje mi nga xam ne si moom la ñuy tëjee liggéey bi nga xam ne si moom dañ doon def ren tey ñaan yàlla mu may nu nu defaat ko déwén defaat ko at yu baree baree bari te lépp lépp rek yàlla di nu dimbale dara ba a ñaaw lépp di rafet. te luñ ci yaakaar yaakaaral ko ci suñ bokki taalibe yaakaar ko ci suñ bokki jullit yi ak waa réew mi lépp suñ borom defal nu ko ma ñëw nag kon ci ñi nga xam ne ñooy suñ bokki bopp yi takk a nekk ci bopp bi di sunu kilifa sëriñ Muntaxa Mbakke bu nu ko tuddee rek man nga wax ne tudd nga ñépp ndax nag fii benn bopp la kenn mënu leen xar ñaar buñ tuddee sëñ Muntaxa rek amul kenn ku yaakaarati ne walla nga bëgg ñu le ak diw loolu moom moo fi mas di dox day loo xam ne dafa tàmbalee ca ci lu sori sun maam yi démb ya ba ci sëriñ Touba mi fi dikk indi xar baax doxe ko na ko ñu njëkk ña doon doxe ndax lool ndax nag loolu dafay dellu rek ci lislaam ji nga xam ne lu ngeen fi gis rek teraangay lislaam la ci ki ko fi indi mustaqay wala mu gont ngir àdduna wala ngir lenn lu dul jëmi suñ borom ak taxawal lislaam te dox ci doxloo ci ñi ko topp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doxe ànd ko ki saxaabam loolu moo indi woon sëriñ Touba ci àdduna moom képpit moo ko mas a ñor lu ngeen fi gis rek lu ko san borom baaxe la lu mu ci soxla wut mën bëgg ko mënu koo jariñoo mu jox ko ñi ko mën a jariñoo ci njabootam te buñ nee njabootam rek jullit ñëpp ci lañ bokk kon nag noo ngi sëriñ sant sëriñ Muntaxa jàpp na ci bis bi ci anam yoo xam ne am na ci yooyu sax moo ko tegoo waaye nun njaboot gi wàcce nañ ko ko waaye lépp luy mën a yéwénal bis bi def na ko lépp lu nuy sagal def na ko xam nañ nag diggante diggante mag sëriñ Abdou Khadir digganteem ak sëñ siiru waaye digganteem ak mbooleem ñi mu bokkaloon sëriñ Touba kon nag maa ngi koy sant ci biir cant googu waxtu yi dafa xat ñépp nañ ma jéggal ma dëxañ lépp ci biir ndax mënuñoo tudd kenn bàyyi kenn amul ku mag amul ndaw amul góor amul jigéen ñëpp ci jàpp kenn seetaanuñu te loolu moo mas di am naka jëkk maa ngi santit ñi nga xam ne noo ak ñoom noo bokk ci réew mi yàlla def ñu nekkal lislaam di ko taxaw ci yeneen yeneeni pénc waaye noo bokk diine ji te biñ bokkee diine ji bunt yu bari ci diine ji ñoo ko bokk ci wàllug tawxiid ci wàllug fiq ci wàllug jànginu alxuraan lépp lépp këri diine yu fi nekk yàlla da cee def tawféex ñu bokk ko ba tax na xëy na ci ngirum tasawuf te ngirum tasawuf it mel na ne jàngukaay yi nga xam ne si yu bari la ci biir yàlla daa defit tawféex ñoo bokk kuñ cay ku ñuy sukkandikoo ci ëpp ci limaam Ghazali limaam al-Jundi yaakaar naa ne mooy seen référence ci tasawuf ñépp ko bokkule loolu nag tawféex la ju suñu borom defal euh, Sénégal ba tax na xëy na ñàkk bokk benn bu sëriñ waaye sëriñ boo gis rek mi ngi dàkk yonent bi sallallahu alayhi wa foofa nag amatul wuute mi ngi mel ne rek bu ñu dajee ca kaaba ga amatul doo xàmmee ti góor ñi ak jigéen ñi du too xàmmee itam ku weex ku ñuul loolu nag mooy lislaam mm, kon noo ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax di leen xamal ne yëg nañu sunu yitte ñëw nañu jàpp ci ñëw nañu bokk ko ak ñun lépp loo ci xam ne nii sama borom dana nu ko ci baaxee noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla booleeg ñoom yéen ñi nga xam ne nag yéenay waa kër Serigne Abdou Khadir yéen nag sant nañ leen bu baax cant gi maa ngi koy tàmbalee ci njabootu boppam gi li ko dale ci Serigne Moustapha ba ci Serigne Bassirou neen ko baaxoo waxee rek dale ko ci soxna Momi ba ci soxna Aminta Lo ñëpp kenn ku ci ne ni ma def boo gisoon Serigne Abdou Khadir mënoo koo def nu ko ëpp lu des ci man la dese waaye ñoom wàccoo nañu ak man nañ ma ñaanal nag seen barke bàyyi seen barke maam li ma war ci yéen yéene naa ko lool yàlla man loo ma ko ma def ko it ca nam gën a baaxe waaye dese luñ dara loolu rek laa koy wax tënk nañ ko te loolu yàgg naa ci yow sama digg ak ñoom euh, loolu ab Ablaye Mbaye di wax lu ma béggee la kóolute gi ñu am ci man loolu ku ko am ci sa say bokk mënatoo mënatoo leen a fay maa ngi leen di ñaanal yàlla lépp luy seen bëgg fii ci àdduna ak àllaaxira xam naa lépp sans seen maam fàggul na leen ko waaye yàlla na ci yàlla na leen defal fan yu gudd àndal leen wér yaram yàlla na leen musal musal njaboot gi topp ci ñoom di santit mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di wut Serigne Touba jaare ci buntub Serigne te nekk ci seen ginnaaw amut lenn loo xam ne nii ëmbal naa ko euh, sama bopp te ëmbaluma ko ñëpp ñoom itam nañ xam ne foofa waay man di nekk di fa yëngatu bu sant jotee man maa war a taxaw sant la bu gërëm jotee maa war a jóg gërëm la pay nag yàlla daa def sëriñtuwaa rek la ñëpp di dàkk te moom nag mën na ko maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp liggéey bu nu uh, nekk bu bu ma ko bu ma leen ko yëgalee kenn ku ci ne da ngay daal di wax ña nga àndal ñu taxaw ca ba ci ndigal li nga xam ne moom la sunu kilifa digal murit yépp jàpp naa ne lin ci def bu ñu sañoon mu ëpp ko waaye nag dañuy tàmbali te bàyyiwunu fas yi ñu yéene feek liggéey baa ngi fi nu ànd ko sëriñ bi kon nag ngeen waaj bu ngeen déggaatee la leen digalit rek ngeen taxaw ci ba ci liggéey bi fekk noppiwul lu ci waay man di def rek na ko ciy def te xam ne nag bu fay jotee sëriñ bi baa leen di fay te képp ku kuñ mës gis mu jëfal ko ba mu fay la ba ci say sët ba ci sëysëtaat ba léegi noo koy gis ci ñoom loola nag sëriñ bi bàyyiwu ko ñi nga xam ni itam euh, mbokk lañu ci sëriñ bi te mbooloo nekk ci seen ginnaaw ak ñi nga xam ne ak taalibe bi mooy leen booleeg sëriñ bi ak kóllëre te ba tey mbooloo nekk ci seen ginnaaw ñoom it li may wax ci sama bokki bopp yi laay wax ci ñoom ñoom ñëpp it ku ci ne lépp loo xam ne dégg nga ko ci kër gi doon ak ku la ci soññi benn yoon rek la ñuy wax sëñ Sidi mii nga xam ne moom la sëriñ Modou um, doon joxoon joxoon kilifteefu euh, liggéey bi mu nekk ci jëwriñ loola man it ma ànd ak samay rakk yépp tegaat ko ci loxoom la yaakaar naa ñi ma ko loon waxal nañ ko seen bopp man bu ma waxoon ci ñoom sax xëy na mu mel ne kuy raat ci jëme ci sa kanam sa kanam waaye tabarkal la ñiñ ko boolee doon ñoo ko waxal seen bopp loolu ñuy wax luñ ci xam maa leen ko gën a xam lewet gee kerse gi la loolu soxla sarut ñu ci ñu ciy sori waaye ñu xam ne tam ñeneen ñi tam kenn ku ci ne rek am nga ci wet goo jàpp te yaa ngi ci dox la nga ca war a doxee lii nag mooy màggal gi mooy liggéey kër gi ci loxoom la nekk te ci la ñuy wax noo ngi koy sant di ko ñaanal bu baax duggoon na ci ñaan yooyu ma doon ñaan waaye ñi ma bokkal kër Sëriñ Abdou Khadre ñëpp maa si gërëm ko ndax li mu fiy def bu ko defutoon kenn ci ñoom ko ci santoon nga ñëw def ko biñ ko ko defee biñ ko ko santee mu ñëw def ko nañ ko bëggee ñëpp ko ameel cant ñëpp ko ameel gërëm loolu euh, lañ ci mënoon a wax euh, dolli ko ci ndax sëriñ Moustapha wax na leen kan mooy Sëriñ Abdou Khadre fàttali na leen ci moom lu bari man ak moom law kunta alxasan la kaana alxuseyn noonu lañ mel loolu nu yàlla dimbilee loolu loolu ñu yàlla dimbilee de maa ngi jéggulu sax war ñu misaale suñu bopp kooku waaye nag danoo bëgg a baax moo tax nag kon ku baax la ñuy tudd waaye noonu lañu mel yàlla nu ko dimbilee sunu kilifa it fàggul nu ko euh, kon bu waxee te waxtu wi xat na bari na tomb yooyu jërul di dellu si ndax jataay Sëñ Abdou Khadir daawud weesu sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee saxaabi yu sàngam nee na wala mu tudd kenn ci gaa yu baax yi daawu ko nag euh, wutal ab tarixa wala lenn ni sëriñ tubaa doon doxee rek la waxe ndax sëriñ tubaa waxoon naa leen ko fii wér du wane joxe na ko fii ku ku ne xam ne diggam ak euh, Cheikh Ibrahima Fati wér du al wér du al Chazali la ko joxoon sëriñ Baara Ñang doomam ma nga ne sëriñ Abdourahman Ñang mi ngi ko joxoon wirdu Tijaan mam la nekk fii di yore ko fi ba 1971 wala 72 la fi soog a jógee kon ni li ni ngeen gisee mu bindi ko ni ni la ko doon jëfee kon yaakaar naa yaatal ci sëriñ Tuubaa la dëpp kon nag lam waxoon ne woote yoruma tariixa dama fekk yoon way yónnent beeg saxaaba yi doon dund wañ doon dox mu ñaxe ma bay ko ba mu set ne leen yoon waa ngokk loolu mooy sëriñ Touba kon nag ku am ku mel noonu te nun mbir ku la ca boole rek moom nga war a xool sëriñ tuuba sëriñ Abdou Khadir mu lim nu fi defal kawe na suñu njort kenn ku ci ne yëngu ba nga yëngu am nga ñoo ko yëngoo ndool waaye wóor na nanga ca mel am na loola ci sëriñ bi jagleel kon nag lum yàgg-yàgg bu ko ci kenn jéem fàtte te euh, njariñ nekk fii nga bëgg ca lool waaye xamoo nooy fooy jaare nag ba jariñoo njariñ li loolu itam kenn ku ci ne nañ xam ne doy na sëkk sëkk euh, ak doye di waaye ab jullit ak lottam mën naa bañ a yàgg ndax suñu borom ubbil na ko bunt bu yaatu mooy ñaan loola jaaxal rek boo xamul nooy jariñoo ñaanal yàlla mu teg la ci yoon wi ngay tax a jariñoo waaye mbir bara nga ko mën a jariñoo da koy xam loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moom lañ rek di leen ko fàttali nangeen ngeen ngoy bu baax ci Serigne Touba na ngeen di bu leen di def lu ngeen dégg ci mbedd walla nit di ko wax maanaam nit gis la yaakaar li ci say poos mu lay wax lu la neex di la jay waaye bu la jayet fa ñuy lijjanteel li nga doon def bañ lay jay kooku du ko fekke kon su boobaa bu kenn nax sa bopp bu kenn war sa bopp waru baaxul ndax tam sëriñ bi wax na ko lakin salaamatum min al xururi la amru rabbi asaabul umur yi bari na luy mën a war nit jihaat sax des na ci waru te gis nga ko xoone mi ngi tuur deretam te seytaane rekk ko gemb loolu day yeneen yi ci des nag buñ ko waxul bu dul jihaat jim tudd itam waaw loolu la ko wa baadohum xat xurra bil jihaad yi xam nga loolu kon day mel ne ku doon ku doon waru bu doon dal nit te mel na ci euh, luy dëppoog bànneexam bakkanam la ko war a mën a dale wala jaamu yàlla gu sedd waaye dem ci jàkkaarloo ko xam ne mën naa tuur sa bakkan mën naa jël sa bakkan yow nga mën a jël bakkanam te fekk ak woru la ci yow loolu nag dama cee tudd euh, baat boobu ndax li ko sëriñ bi wax ci ci ci masaalikul jinaan waaye jaamu yàlla yépp lu ci ne mën na caa dale nit nañ koy moytu ba ci it yi nit ñuy jàng koo gis rek mu naan xasaayit xasaayit te ñu baree bari xamuñu lan mooy xasaayit bu leen fàtte ne sëriñ Touba ca gànnaar ja ba tey ji foofu dañu wax rek ni sëriñ bi bi muy nekk ca moritani xumak fa la joxe ndigal ab kuréel boo xam ne bis bu xëy balaa jant soo ñu wàcc ñeenti kaamil ñeenti kaamil yooye lam ci fas lépp luy jariñ mbooleem jullit ñi la te euh, boobee ba tey ba nim dikkee njaarim am fa fukki at ak juróom-benn ak 1927 la dikkoon fii ci Touba ba tey jii njaareem ji kaamil ba ma nga fay sax ñeenti kaamilam yooyu ba fii ci Touba ñeenti kaamilam yooyu mi ngi fiy sax ak barab bi njabootam gi fi nekk ak li ëpp ci magi taalib yi ko toppoon. kon loolu euh, ndigalul sëriñ Touba la loo xam ne ñëpp luñ teg bët la luñ teg loxo la kenn du ko fa wàcc di jëfandikoo sa xelum bopp. sa xelum bopp buñ la jubbantiwut seytaane mën na lay gidi mën na lay wommat te euh, sëriñ bi ci boppam njëkk loolu lépp dafa wax ne kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xayri zikirin xat rusim ndigalul sëriñ Tuubaa nag am na yaakaar ci ne ku ku taalibeem doo ko dégg di wacc di jëfandikoo sa xelum bopp wàcc lu la leer nàññi di def leneen kon nañ ci góor góorlu bu baax maa ngi ñi nga xam ne sëñ Abdou Khadir la ñu yaakaar may seen jëwriñ ñooñ maa ngi leen di wax nañuy moytu bu baax di ko laabir yet sama bépp mbokkum taalibe mu yaakaar sëriñ Touba nañ xam ne sëriñ bi dafa fonk lu alxuraan xasaayid yooyu boo ferul yi mënoo jàng xasida te boo bu la sa say waajur di eh, boo demee ba mat a dal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 ba ñëpp di ko waaye Cheikh Mbay Masalik xamoon naa ku ñuy wax Cheikh Diop Cheikh Ndaama Daaru Muxti la dëkkoon di taalib si ñam sa Cheikh Cheikh Diop ma lañ ko daan wooye kenn xam ca mel ca année soixante ba ni mu fi jógee yàggut saa bu xëyee jàng ba ñëpp xame ko ko tudde ko kon ñëpp jàng xasaayit sun sun njariñ ñun ñëpp lu nuy jariñ tey ak ëllëg mi ngi ci fii bu gàmm mosaan dikk sëñ Abdou Khadir li muy ubbee eh, ak gàmmoom mooy yab tànnoon na mag ñu sell yabal leen ci jàkk ja la ñuy njëkk a def wàcce fa kaamile alxuraan ba bisu tey bi sëñ Lamine Diop mi ak magam ñoo koy taxaw sëñ Cheikh may sax ci mujj gi moom la daan taxawaloo ñuy jàng man mos nañu faa yab maag sëñ Moussa mii ba ñuy doog a ñibbisi loola ba tey ñu ngi ko fiy def bu noppee nag. ma ne ko euh, bu noppee ca njàngum alxuraan nag nu nuy def ci li ci guddi gi mu ne xanaa farlu ci xasaayid yi kon jàngalu nañ waaye dangay ngay jàng alxuraan waaye nga jàngi xasaayid waaye bul ne nag sëriñ bi defal nañu ci lépp bu la ci sëriñ bi defee lu ne lépp te jaaroo fa sëñ bi digle it doo ci jot kon daal loolu maa ngi koy laabiri ñëpp ku ku yaakaar sëriñ bi daal lii lañ lay wax te lii ma lay wax képp koo xam ne mi ngi sama rak nga ju ma sëñ Abdou loolu la lay wax digal amu ci amuñ ci ak werante nanu góorgóorlu bu baax e, bu bu nu soññee itam sant leen ci li weesu ci ndigal yi ngeen dégg di ko jëfe muy demee ne màggal gi ak du sëriñ bu mag bi diglee jëwriñ yi jottali leen ko la ngeen cay def soññi wuñu kenn kenn kon dañ laa bàyyi ak sa sago nga doxe ca nang ca mën a doxe te loolu mooy baaxu kër gi te loolu fa fasuñu ko yéene teggi mukk waaye li ci kanam nu xam ne ba tey rek noo ngi dégloo fu sunu kilifa waxee amatuñ genn bëgg ginnaaw nag kër gi ci boppam it am nañu aw sas ci lislaam ndax nag tool bu mag day am boo xam ne day am jenn riñ ñëpp maase di ci xëy see ko gont waaye boo xamee ne tool ba set na nag kenn ku ne war ngaa dem bàyyi sa toolu bopp loola nag kon kër Sëriñ Abdou Khadre gi nga xam ne mooy seen bunt ci Sëriñ Touba na ngeen xam ne kër boppam gi na ngeen xam ne eh, tabax bi mu dëkke woon 1976 ba mu jógee ci at gi la ko sancoon at yi yëpp noo ngi ci yëngatu am na it yeneen liggéey yoo xam ne fas nañ ko fee yéenee def muy loo xam ne rek dana gën a yaatal euh, njaboot gi rawatina ci waxtu yi nga xam ne mbooloo dafay daje bu leen fàtte itam kër gi nga xam ne si ma nga ca usine benn tali jàkka ja nekk fa dama waxoon ne mënuñoo yëngutu ci mbirum kër te jumaa ji nekk fi am lu ca des kon nag maa ngi digal ñépp ñu bàyyi ko xel bu nu génnee nawet bi jàmm incha allah danaa ko wax ak ñi ma ci war a waxal danañ ko jottile dana balaa boobu dana fekk ñu xam liñ bëgg a def lan la ak nan lay toll su boobaa maa ngi leen di wax lu ca waay man na ko def man fa saa yéene lu ma am def ko ci mag samay rek ak mm, waa kër gi ñëpp kon nag du léegi waaye ñu teel koo bàyyi xel bu baax lu ci àgg rek luñ ci toll rek dañu ko xam waaye euh, nañ bàyyi xelit ne su boobaa loolu nañ ko jàppe ne mooy toolu mooy ngont mi xëy mi sëñ bee ko moom bu sëñ bi joxee digal it na ñëpp xam ne dañuy fas yéene xëy ci sëñ xëy ci xëyal xëyal ci sëriñ Touba gont gont ci toolu sëñ Abdou Khadre bi nga ba noppee ci sëñ Touba la jëm kon daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jéggalu nag ndax waxtu wi suñu borom soxla nanu ñuy jéem koo jooxi maa ngi sant rafetlu teewaay ak sëriñ Xaasim Mbàkke ak sëriñ Maamun Mbàkke moom sëriñ Fallou sëriñ Xaasim moom sëriñ laa moom ngeen déggoon muy wax sànq euh, la waaye mbokk yëpp rek teew nañ tey nag ñoo teew ci jataay bi ak mbooleem mbokk yi fi new yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal bu baax di sàkku ci yéen ñaan bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullah